jërëjëf. Mm. Euh, nouvelle bi ba nga ko déggee démb euh, muy premier baril bi nga xamante mm-hmm. ni euh, Sénégal jot na ci. Mm-hmm. naka nga jàngatee bile nouvelle. waaw comme euh, nouvelle pour Sénégal yi rek parce que en réalité. Mm-hmm. Euh, le juin bi passé euh, Jérémy Sox nga xam ni moo nekk le directeur adjoint de Woodside chargé de l'exploitation affirmé woon na ni le brut de Sangomar avait commencé à être commercialisé par Woodside juin 2023 la def déclaration boobu sans dire quand mais def ci toftal ni pour le Sénégal euh, son premier baril est attendu en mi 2024 mmh. donc fi mu nekk nii ñu ngi ci mi 2024 alors il faudra comprendre pourquoi ñoom ñu commencé commercialiser avant ba noppi maintenant seulement ñun ñu am suñu premier baril loolu je crois que les autorités euh, war nañ ko lijjanti. c'est-à-dire commencé nañu bu yàgg avant. comment euh, Jérémy Sox. Euh, xam nga man je veux pas amener beaucoup d'insertion mhm. mais euh, il a fait une déclaration mhm. qui a été rendue publique par l'ITIE ITIE moom moo mhm. ñuy seytu transparence ci wàllu industrie extractive kon boobu samay wax moom moo ni 7 juin la ko def déclaration boobu ni Woodside commencé na commercialiser britu Sangomar waaye Sénégal mu ngi commencé am pétrole am premier baril am mi 2024 fi mu nekk nii ñu ngi ci xaaju 2024 kon loolu ñu ngi ci kon tey ji information la pour Sénégal. par par jour. non euh, fi mu nekk nii euh, dollar bi euh, baril bi plutôt mu ngi ci quatre vingt deux dollars donc quatre vingt deux dollars ngay multiplier par par par cent mille donc euh, ça fait je crois quatre vingt millions de dollars donc par jour. Mhm. donc mais du noonu nga koy gisee parce que dafa am wàll bu ci Sénégal am. ak wàll bu ci Woodside am. Euh, entreprise bi exploité moom moom quatre vingt deux pour cent yi. Petrosen am dix huit pour cent. lu waral loolu. li waral loolu mooy contrat yi ni ko tëggee moo ni ñun pour cent rek la ñu am léegi gannaaw suñu dix pour cent yooyu nag mën nañu jëndaat beneen dix pour cent supplémentaire yokk ko ci donc Petrosen au lieu mu jënd dix pour cent supplémentaire moom huit pour cent supplémentaire la jënd kon deux pour cent yooyu di lang sax xaw ma lu tax. donc loolu moo indi ñun ñu am 18 pour cent. mais mais y une grande question boo xamante ni itam doyen le Séné les sénégalais dañ koy laaj. mooy lan moo tax euh, pétrole bi feeñee suñu réew ba pare ñoom ñu ëppale ñu ci ba pare ñun ñu delluwaat itam di jëndaat. waaw loolu mooy li ma la wax léegi tontu naa ci ba pare parce que contrat yi. Mhm. moom la ñu tëggee noonu. ñun suñu code pétrolier boo koy lire dafa ne ak suñu code minier yëpp. Mhm. lépp luy pétrole ak gaz bu génnee. Petrosen 10 pour cent la ciy am gratuite ci njëlbeen bi loolu code pétrolier bi la te loolu la ñuy reconduire ci contrat bi. Mhm. léegi 10 pour cent boobu maa ngi répété wu. Mhm. moom la ñu suñu ay texte de référence jox may ñu nag possibilité jënd beneen 10 pour cent supplémentaire. Mhm. dolli ko ci muy 20 pour cent. te loolu sax jaaru yoon parce que dañu ñoo limité ñun. ca la ñu a jënd sax ci suñu alalu bopp pourquoi 10 pour cent rek la ñu mën a jënd. Mm-hmm. ñu tënk ko ci code pétrolier pourquoi. alors que tubaab bi bu ko neexee mu jënd 40 pour cent. Mm-hmm. bu ko neexee mu jënd 50 pour cent mais ñun dañoo limité ci 10 pour cent la ñu mën a jënd gannaaw 10 bu ñu may. te mm-hmm. nee nañu dañ ñu ko may te ñu ñoo moom de temps loolu naka la doonee may 10 pour cent bu njëkk bi 10 pour cent d' action gratuite donc loolu. mooy ni ñu tëggee suñu contrat yi nga xam ne. Mhm. man yàgg naa ko dénoncer partout. Mhm. parce que constitution bi dafa ne les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mhm. waxul ni euh, tubaab bee ko moom quatre-vingt-dix pour cent. donc euh, loolu lu ñu war a xoolaat la. moo tax nit ñi di wax tout le temps euh, négocier waat contrat yi ak réviser contrat yi. est-ce que c'est explicitement possible aussi de renégocier les contrats. c'est possible de renégocier les contrats parce que euh, par exemple. Sénélec. bi Ablaye Wade di jël nguur gi ci Abdou Diouf fekkoon na Abdou Diouf jaay ko benn société canadienne bu tudd Hydro-Québec. Mhm. Ablaye Wade dafa woo hydro waxtaanaat ak moom jëlaat Senelec ci moom à l'amiable remboursé ko 119 milliards. Mhm. loolu solution à l'amiable la de façon contentieuse feeru euh, Falémé bi Kumbali South Six lañ ko joxoon. Mhm. Ablaye Wade cassé contrat bi dem ak ñoom yoon. ñu condamné Sénégal mu war a fay cent soixante onze milliards. mais ArcelorMittal bi jonk jonkanoon pour reprendre le contrat moom moo ko mujj fay parce que kooku moo jëlaat encore contrat bi bi mu euh, euh, euh, règle nu mu tuddati ak engagement de travaux bi. ñu nanguwaat contrat bi ci moom encore. kon loolu exemple buy wane ni. Mhm. parce que dañu bëgg dugal ci xelu nit ñi contrat kenn mënu ko laal même Macky Sall bi muy demee sax def na discours boobu avant muy dem def na discours boobu comme si pour dire bu leen laal bu leen laal bu leen laal. Mhm. c'est pas vrai donc euh, blogu Rufisque offshore ñu ngi ko joxoon Frank Timis ci benn société mu tudd African Petroleum Limited. Mhm. mais dañ ko nangu ci moom jox ko Total. donc yooyu yu mën a nekk la te bëri na ay blog yoo xam ne joxe woon nañ ko blogu Diourbel blogu Louga blogu blogu Casamance. Mhm. onshore yooyu yëpp Macky Sall da ko nanguwaat. mu ngi nekk ci escarcelle Sénégal fi mu nekk nii ñu ngi nekk vingt et un blocs libres. Mm-hmm. yoo xam ne joxeeguñ ko. kon tey jii euh, suñu texte de référence yi la ñu war a xoolaat pour dëppale ko intérêt Sénégal parce que 10 pour cent. Mm-hmm. loolu la ñu war a xoolaat la. mais mais euh, lu jëm ci wàllu contrat yi nga doon wax li nga doon wax léegi nii est-ce que tamit euh, maanaam. am na yeneen ay foo xam ne si ni am na pétrole yoo xam si ni euh, defaguñu contrat bi wala bu Sangomar bi kese moom moo concerne les dix pour cent yi nga xam si ni Sénégal da koy moom itam lu jëm ci wàllub euh, code pétrolier bi nga doon wax tout à parce que yaa ngi wax que ni noonu lañ ko tëggee que ni euh, peut-être ñun dix lañ ci war a mën a am wala vingt mais est-ce que loolu tamit mën nañ ko changer waat ba nga xam si ni ñun dinañ ci mën a am lu jege cinquante pour cent wala sax au moins lu ko ëpp. waaw xam nga euh, bloc yi. Mhm. yëpp même code pétrolier moo ko gérer fépp fu pétrole feeñ nee naa la am nañu vingt et un blocs libres dix pour cent mooy liñ ci am ci départ bi. même yooyu tamit ñu exploité yooyu tamit yu ñu exploité wu parce que code pétrolier bi moo consacré loolu parce que kiy ñëw di wut si. Mhm. sa code lay xool xool avantage yi ko code bi jox mu ñëw dugg donc code pétrolier bi bu nee. Euh, dix pour cent ngay am. Mhm. dix pour cent ngay am. oui bu nee gannaaw dix pour cent bi mën nga jëndaat euh, beneen dix pour cent loolu rek ci mën a teg. Mhm. donc loolu mooy mooy mooy problème bi léegi nag comme dem nañu en phase de production. Mhm. mën nañu woo entreprise yi toog ak ñoom renégocier les termes. oui les termes parce que ci biir termes yi parce que man maa ngi leen jox benn benn grille de partage de production boo xam ni dafa am problème. effectivement parce que ci. lii des ci production bi xam nga bu ñu amee pétrole. Euh, kii exploité la mu dépensé ci recherche prospection. Mhm. développement ba exploitation yëpp da koy facturé ci Sangomar ñu ngi ko facturé diggante quatre milliards neuf cent mille dollars. Mhm. ak cinq milliards deux cent mille dollars léegi xaalis boobu ñoom dañ koy téq ci production bi ba ba muy mët. maanaam lu tolloog 75 pour cent la ñuy téq mm-hmm. pour fayeeku ñoom lañ ca def. investissement bi. investissement bi léegi li ci des moom la ñu tuddee production restante boo xam ne dañ koy waat ak ñoom ci biir séddoowaat boobu nag loolu moo waral ñu tuddee contrat bi contrat de recherche et de partage de production. Mm-hmm. léegi ci séddoo googu dañu ne. Mm-hmm. ba mille baril jour. ñun dañuy dolli vingt pour cent. ca la des. production restante bi ñuy tuddee mm-hmm. ñoom profit oil. mais bu weesoo cent mille barils jour au lieu am vingt pour cent dañuy am vingt cinq pour cent maanaam dañuy am cinq pour cent de plus. de plus léegi nag euh, Cosmos euh, léegi maanaam Cosmos Woodside. Mm-hmm. mu ngi déposer plan de production bu cent mille barils jour net. Mm-hmm. loolu mooy bu ñu ci tegoon benn baril rek. ñu am 5 pour cent de plus parce que dañuy changer tranche. Mhm. de partage. Mhm. léegi pourquoi président Macky Sall gisul loolu pourquoi mu nangu cent mille baril te bu ñu ci tegoon benn am cinq pour cent de plus donc loolu mooy grille bi mu la yónnee woon pour nga illustrer mhm. ko euh, ñiy seetaan. parce que loolu angle la boo xam ne. mën nga ci woo Woodside pour négocier ak moom. ni ko. yow sa cent mille baril yi da nga ciy dolli benn comme sa au lieu ñuy am vingt pour cent ñu am. vingt cinq pour cent donc ci contrat. Mhm. boo ko xamee. Mhm. ci biir ngay xool prox ndool yi nga xam ne mën nga ci waxtaan ak ki nga xam ne investir na ànd na ak yow ci liggéey ba pare pour am loo loo récupérer ci contrat bi donc am na yeneen clause yoo xam ne dafa maye. Mhm. même wut saaj bu moomee quatre vingt deux pour cent ñun li ñu soxla ci pétrole. balaa Woodside di jël cargaison am yóbbu ko bitim réew. day satisfaire les besoins de la consommation nationale ba pare. loolu tamit mu ngi ci contrat yi mais également mu ngi ci code pétrolier bi ci article am bi ñuy wax article 54 kooku tamit yónnee naa leen ko. Mm-hmm. boobu mooy wax ne Lamine dinañ ko affiché boobu mooy wax ne. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, balaa ñuy exporter leen dañuy satisfaire euh, les besoins de la consommation nationale ba pare. ok léegi à ce titre. les besoins de la SAR ñu ngi ko estimé à vingt mille barils jour. kon ci production Woodsaay ñun dañ ci téq vingt mille jox SAR lu jotewul dara ak suñu dix huit pour cent. Hmm. waaw loolu suñu code pétrolier moo ko consacré xam nga mu ngi commencé neex. Hmm. Hmm? parce que loolu dina permettre au moins SAR am. oui pétrole bu mu bu muy raffiné. di ñu ko jox mais boobu dañ ko koy jaay. mais dañ ko koy lebal deux deux mois day am soixante jours de différé de paiement kon mën na ko transformer mhm. ba jaay ko doog a fay wut saayit mën na ko def essence ak gasoil ak huile ak yooyu ba jaay ko ba pare